jàmmaneex jàmmaneex jàmmaneex ñun moom lañu ñaan alhamdulillahi alfardu samad allazi lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad suma salaatu wassalaamu ala alfaatixi alxaatimi bahjati alkawni wa diyaa'ihi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari al-azim wa baadu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yéen mbokk yi topp seen site mouslih tv point com seen mbokkam daara Alioune Cissé moo leen di nuyu te di leen ziara di leen ñaanal yàlla jàmm te di ko sàkk ci yéen di fas yéene dellusiwaat ak yéen ci liggéey bi nga xam ne baaxoo neen di ko ànd ak yéen mooy doon jéem a toppante ak yéen bi ñu tuddee al axdari fi l ibadat ala mazhabi imam malik radiallahu anhu ba biñ fi mujj borom téere bi mi ngi doon jàngal li nga xam ne sart yi nga xam ne mooy tax nit ki julleem mën a wér ak sart yi nga xam ne mooy tax nit ki julli war ko tey nag mi ngi ñuy jàngal moom borom téere bi ay yenn ci ay masala ki nga xam ne julli jot na amaana ànd na ak sobe wala amul lu mu sol ak yu ni mel dana ko leeral moom borom téere bi tey boo ñu toppee ku nekk la ci war rek borom téere bi dañu ko jàngal mu ne wa tukrahu sib neen asalaatu julli fi saraawili ci tubéy mu ne sib nit ki di jullee tubéyu kese góor góor nag moo tax muy wax tubayu kese mu di ko jullee sib nañ ko te bu ñu koy sib nag mooy lenn mooy tubay ji day fekk nga mën koo xëcc ba ci ba ci ba ci kaw ba ci jimbax bi te lool boobaa day jur seere kon dañ koy sib naka noonu waaye bu dee nag moo tax mu ne illaa isa kaana ndara bi dafa nekk faw fawqaha ci kawam nag shay'un dara mooy bu dee daal da koy xëcc ba seer loolu dañ koy sib bu dul loolu mënut a yegg ca kaw te boobaa kon say awra nëbbuwut waaye nag nee na bu dee nag dafa nekk dara ci kawam mooy lu mel ni xaftaan nga sol ko mu nëbbu la ci kaw nee na boobaa dara nekku ci nag moo tax mu ne illaa isa kaana ndara bi dafa nekk fawqaha ci kawam shay'un bu dee nag sol nga tubay sol xaftaan wala nga solo bolat kay ci kaw boobaa ne nag fala shay'un alayhi dara nekku ci boobaa pare na ci lool mu ne wa man tanajjasa kook sobewu na sawbuhu ay mbalaanam mooy ay yéreem walam yajid te amut sawban xayruhu beneen yére walam yajid te amut maa an yaxsiluhu bihi amul ndox mum ko mën a fóotee awalam yakun wala nekkul sa xendawu fa moom maa yalbasu xatta yaxtasiluhu lu mën a sol ba fóot yéreem te waxaafa mu ragal xuruuja waxti génn waxtu wa mu ne sàllaa na julli bi najisihi ak sobe si loolu mooy lan mu ne képp koo xam ne julli dafa jot benn yére nga am te yére bi daa am sobe demal nga julleeg yére booba demal nga julleeg sobe si wala am nga yére benn yére nga am am nga ndox moo ko fóotee waaye balaa nga xaa fóot ba pare waxtoo day passé solal yére bi nga julleeg moom noonu ci ñi ci nga xam ne dañoo gëm ne dab waxtu mu gën dab laab wala am nga ndox moo ko fóotee waaye boo koy fóot amoo beneen yëre boo mën a sol boobaa tamit so julli la ak sobe si rek kon daal loolu li ñu ciy déggee rek maanaam sobe du tax nit kiy julli wàcc ko damaa laabu rek tax du ma julli déedéet loolu islaam xamu ko kon li tax julli wàcc nit ki mooy xel mu dem ak ak xel mu dem ak ak yu mel waaye ay tawat damaa feebar ak damaa nangam ak yooyu yëpp tax julli wàcc la damaa am sobeek du tax julli wàcc la kon julli lu foor a foor la kon julli lu foor a foor la kon xel mu dem xel mu dem daal mooy tax nit ki nit ku nekkatul nit ndax ku xelam dem bokk na ci saat yi la jàngal dart bi wees mooy nit ku amut xel koo julliwaat nag mais nit ki feegi mi ngi am xel day julli ni manee moo xam day julli di jàng ci xelam moo xam day julli di xef ci ay bëtam ak nu mu ko manee rek day julli feegi mi ngi am xel kon mi ngi noonu kon nga déggaa ko dañ ciy déggee kon fooraayu julli la kon kon nit ki benn yëre la am mu am sobe islam na ko jullil am naa ndox mu ko fóotee waaye balaa booba day heure bi day passé mun la jullil ak sobe si kon yooyu yëpp dañ ciy dégg fooraayu julli rek kon pare na ci loolu mu ne walaa yajuusu du dagan lan mu ne taaxiiru salaat yéexee julli li adami tahaara ngir ñàkk laab kon dégg nga nee na daganu nit sax ngir lan damaa laabut nee loolu daganut mu ne wa man faala dalika képp ko def loolu damaa laabut moo tax muy yéex a julli mu ne faqad asa rabbuhu na boromam kon nga loolu nee képp ku yéex a julli rek ngir damaa laabut kese kese kese mu ne mooy nga yàlla mu ne wa man lam yajid ku amul maa yastaru bihi awratuhu lu mu suturaale ay awra mu yëre yum sol kanaa ko julli wàcc na ko mën a déeréet dina ko li koy wat lu muy def mu ne salla awra na julli ak yaramu neen mu ne nit ko amul yëre yum sol sax taxul julli wàcce ko ne ko def mu ne julli awra na ak yaramu neen bu dee ci àll la ko fekk na mu yëru ci benn taatu garab julli bu dee këram la mu tëju ci néegam julli alaa kullin yow mi koy dégg tey nag dana la jaaxal wa yëre mosoon naa jafe ma ko yëre nag tey mosoon naa jafe tey nag ne ngay dugg ci nekk fekk fa si batan bu fees ak ay valise waaye nag bu bàyyi xel ne jamono yëre mosoon naa jafe nga dem da nga daan dem ci dëkk benn yëre moo fa daan nekk yëre bu bees képp ku am soxla bu aajo bu am solo booy doxi ñoo sol ko boo ñëwee lem dañ tegaat fa tey nag boo koy dégg ñun tey dañu ñu jaaxal lool ndax tey yaa ngi am sa néeg si batan kii 5 batan kii 4 te terewut mi ngi am valise yu duy ba mu fees mu ngi noonu kon waaye nag loolu mosoon naa am kon mi ngi noonu kon képp koo xam ne julli jot na te amoo yëre yoo sol ko neen na nga julli neen par na ci loolu mu ne wa man axta al xibla ku mooy xibla ahaada na baamtu fil waxtu ci waxtu wa képp koo xam ne danga mooy xibla maanaam dangaa julli jublu foo xam ne nekkul xibla dangay baamtu julli ga ca waxtu wa baamtu ci waxtu wa nag mooy bu waxtu wa paasee dootoo ko baamtu moo tax yow mi nekk dakaar nga xam ne xiblay Dakar kenn mënu koo xam boo demee seeti sa mbokk balaa ngaa kabaar julli ne ko fu xibla bi féetee dangay julli ba pare waa ji na la fi nga julli du foofu balaa boo bëggee mucc ci loolu nag koñ boo dem ndakaar Dakar laajteel fi xibla bu féetee buñ la ko waxee nga door a kàbbaar julli waaye da ngaa julli ba pare waa ji la fii du fii du xibla bi tourné waatal nga jubli tourné waatal nga julli waat ci sansi waaye da ngaa julli tàkkusaan jubli benn xibla amaana waa ji nekk foon nga dem ba timis nga jublu fa nga jublu waatal waa ji ne la fii du xibla bi de ah boobaa tàkkusaan passé na kon jégal nañ la ko boobaa dootoo ko baamtu kon ndax waxtu tàkkusaan boobaa day fekk mu passé moo tax yoon boo ci bëggee mucc mooy Dakar koñ boo ci dem laajteel fa xel bu féete ñu waxal la ko nga jublu foofu jull boo boobaa da nga mucc ci loola. mu lay leer la ne wa kullu i'adatin bépp ak baamtu nag fil waxtu ci waxtu wa fa hiya loolu fadilatun ngëneel la mu ne fépp fu ñu la waxee nag bëri na la koy wax ci téere fépp fu ñu la wax ne baamtul ci waxtu wa rek nee na ngëneel la moo tax bu waxtu wa pa passé nag boobaa dootoo ko baamtu. mu ne wa kullu ma toadu lépp loo xam ne daf koy baamtu wa ci ma asalaatu julli fil waxtu ci waxtu wa mu ne falaa tuaadu minhu alfaidatu wa naafilatu mithlu zalikum noonu mu ne lépp loo xam ne wax ne la nga baamte ko ci waxtu wa ci farata mu ne tamit naka noonu bu dee naafila la ah dootoo ko baamtu kon da ngaa julli ñaar raaka doon dawal ñaar raaka jublu fenn ba pare rek waaye na la na fii du xibla bi boobaa tamit bu dee naafila tamit doo ko baamtuwaat boobaa jégal nañ la ko kon mi ngi noonu loolu yëpp kon ñu bokk ci bàyyi xel bokk ci ay masala yoo xam ne masala yu la daal yu mat a bàyyi xam naa kon day ñëw taxaw foofu rek yemale foofu dar si bi xam naa ba ma toppee dars bi ñëw nag borom téere bi muy bëgg a dikk ak ñun nag ci jaamu yàlla googu ñu tuddee julli dugg ci moom carrément nag indi la farata yeeg sunna yeeg la ci aju xataa fii ba borom téere bi jeex nag léegi borom téere bi dootul bàyyee te julli di wane importance julli ak nekk ak taxawaay bi ci nekk amaana yooyu dars bii di ñëw incha dana ko leeral bu baax a baax ban taxawaay la am ak wàccuwaayam ak lan may farata yeeg lan may sunna yeeg ki ko xamut lan may atteem ak yi ni mel boo ma toppee ci dars bii di ñëw rek incha dana la ko leeralal ki nekk nag ñun ci technique bi sa sant jàll la waaye naka noonu ki nekk nag yéen ci kàddu gi seen mbokkam daara la ñu ngi jaajëfal mboole mbokk yi nga xam ne ñu ngi topp ci site bi di wéy tamit leen soññ yéen ñu abonné go ngeen abonné ci site bi ndax waxtaan ñun dugal ngeen mën ko am ci sensé kon mi ngi noonu kon ñu ngi taxaw foofu di wax li leer yàlla la li ci lëndam gàtt xam-xam ak ñàkk fasaxa la in uridu illa al islaaha ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jàmmaneex jàmmaneex jàmmaneex ñun moom lañu ñaan